dañu ñëw fii euh, euh, ak aux des autorités région bi gouverneur jiite ko indi ci wetam l'ensemble des chefs de services régionaux ensemble élus ak acteurs non étatiques ak société civile ñu wër ko ah pour que ñu élaborer contribution région de Diourbel ci stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe stratégie nationale boobu nag benn document la boo xamee ni le président de la république euh, moom moo joxe instruction bi euh, directive boobu lors du conseil des ministres du 6 novembre 2019 pour que ñu defar ko moo instru euh, jox directive ministre de l'intérieur bi nga xam ni moom mooy diriger exercice bi à travers la direction de la protection civile li ñu war a wax mooy stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe document de politique la boo xamee ni yamul ci protection civile kese ah document la boo xamee ni l'ensemble des composantes ah de la nation am nañu rôle boo xamante dañ ci war a def te président bi moo tax moo tax mu wax ñu am une démarche inclusive et participative composante bu nekk que ngay état que ngay élu que ngay société civile yow yaay rédiger définir parti bi nga xam ni moom mooy sa parti ci document de politique boobu loolu moo tax nag ñu ñëw tey ci région de Diourbel wetu autorité administrative bi ñoom ñi nga xam ni ñoom ñoo xam yan risque au quotidien la ñuy dund yan défi la ñu confronter ak yan mooy seen solution yi ñu xalaat ni au niveau déconcentré moom mooy tax ñu mën ko jël en charge loolu mooy suñu tànk fii tey ci Diourbel catastrophe yi si Sénégal bëri na bëri na actualité bi wane na ko li mujj ren mooy euh, ni ñu déclenché euh, plan Orsec ci inondation yi waaye waaye du ñu sore ci euh, wax catastrophe ci Sénégal yëpp ndax exercice boobu def nañ ko déjà au niveau national tey li ñu fi indi mooy dañuy toog ci wetu waa Diourbel nga xam ni comme ni ko gouverneur di waxee ñoom ñooy dund catastrophe yi ci ñooy xam métit bi ñoom ñoo koy dund bés bu nekk ñoom ñoo xam lii war ci ñoom am nañ ci seen xalaat ñoom aussi ak seen xam-xam boo xamee ni mën nañ ko yokk ci xalaat ci document euh, national bi nga xam ni moom la ñuy def pour que Diourbel au côté de quatorze régions du Sénégal am contribution bi nga xam ni dina jël spécificité loolu mooy suñu tànk fii tey